am na beneen programme aussi bi ñu sumb. neen nag am na benn programme boo xam ne dañ koo sumb. soxla nañu seen ñaan. nee na Mbàkke loolu nag wax dëgg yàlla soxla na seen ñaan. soxla naa sa jàppale. nee na soxla na Mbàkke nag sa jàppale. loolu ñu sumb noonu. nee na loolu ñu sumb noonu nag. mbirum réew mi la. loolu mbirum réew mi la. xam nga xam nga euh, euh, mbirum plastique. nee xam nga mbirum plastique. yàq ci réew mi. nee na loolu dafa yàq dafa am lu muy yàq ci réew mi Mbàkke. ci wàllu gàncax. ci wàllu gàncax gi. ci wàllu jur gi. ci wàllu jur gi. ci wàllu mbay mi. ci wàllu mbay mi. ci wàllu santé population yi. nee ci wàllu santé population bi. dafa jéggi dayoo. te loolu Mbàkke dafa jéggi day wi. li gën a metti. nee na Mbàkke nag wax dëgg yàlla li gën a metti mooy boo jógee dëkk bu mag. nee na boo jógee ab dëkk bu mag. boo jubsee dëkk bu mag. boo jubee dëkk bu mag. li ngay njëkk. li ngay njëkk a gis. nee na li ngay njëkk a gis nag Mbàkke. mooy plastique yi tasaaroo. nee na plastique yi moom ngay njëkk a gis rek ñu tasaaroo ci dëkk bi. loolu nag. nee na Mbàkke nag loolu nag. saafara bi. nee na Mbàkke loolu nag waaye saafara bi nag. mooy tere ko. nee na Mbàkke loolu xanaa nag jóg ci rek tere ko. tere ñu ñu naan ci ay mbuus. nee na ñu tere nag ñu ñaan ci ay mbuus ñu naan ci ay mbuus. di ko jël di ko sànni. jël mbuus yooyu di ko sànni bu ñu naanee ba pare. ñu tere. nanu ko nee na dañ koy tere. ñu tere aussi ku naan ci ay ay ay gobelet plastique. nee na ñu ngi tere kaasu plastique nee na kaasu plastique yi tamit dañuy tere ku ci naan. ku ci naan jël sànni ko. dañuy tere nag mbàkke ku ci naan jël di ko sànni ci ci ci dëkk beeg àll bi yëpp rek. loolu nag xam naa ni. nee na mbàkke loolu nag xam na ni. buñ ko teree. nee na loolu bu ñu ko teree. mun na am mu am si ñu mu metti. nee na wax dëgg yàlla dana am ci ñoo xam dana leen metti lool. mais li ñu li li li ko tax a jóg. nee na mbàkke waaye nag loolu li ko tax a jóg nag. mooy cet setal réew mi. nee na loolu ba ñëw bëgg rek setal réew mi. bu ñu sañoon. nee na Mbàkke nag bu ñu sañoon loolu. dëkk boo dugg. nee na dëkk boo dugg. ba ngay dugg bay génn. nee na ba ngay dugg bay génn. doo gis salte. doo gis salte. rawatina doo gis plastique buy traîner. nee na doo gis plastique benn boo xam da ngay traîner ci mbedd yeeg yëpp. parce que plastique bi. nee na parce que nag plastique bi. lu muy jural mbay mi. nee na lu muy jural mbali mi. mbay mi mbay mi. te ñun ñëpp ñu nekk ay baykat. nee na te ñun ñëpp ñu nekk ay baykat. kenn umpale wu ko. te kenn loolu nag wax dëgg yàlla mbàkk kenn umpale wu ko. lu muy yàq si jur gi. nee na lu muy yàq ci jur gi. ñun ñëpp kenn umpale wu. nee na ñun ñëpp kenn umpale wu. soxla nañ nag sa njàppale bu baax. nee na Mbàkke soxla nañ nag sa njàppale bu baax Mbàkke. soxla nañ bu baax sa kaddu ci loolu. nee na Mbàkke soxla nañ sa kàddu bu baax. xam nañ ni sa kaddu bu jibee. nee na Mbàkke xam na ni sa kàddu bu jibee. dafay nekk ndimbal ci li nga xam ne moom la ñu sumb. nee na dafay nekk ndimbal ci li nga xam ne moom lañu ñu sumb. yooyu ngeen di sàkkoon nag fekk ngeen ci sëriñ bi fekk ngeen ci sëriñ Tuubaa ci loolu yàgg nañ ko wax lépp loo xam ne day jëmale am réew kanam ni nga xam ne kilifa yi nañuy la saytoo baatin ba noonu la ñuy saytoo saayir si itam ndax xalaat bu rafet buñ ko amee ci kilifa yi lañ koy jëlee dëkk boobee ci di tuubaa ñu wax ne Serigne Touba daana nekk ci njaareem di fa santaane ñu di ko setal te ñoom ñii ñuy santaane setal googa bu mag gan yi màggali Touba yi jublu see ñu ne na dëkk bi set balaa gan ñee ñëw ba demee na setaat bu dëkk bi melaat na meloon loolu kon li ngeen di santaane zéro déchet boobu ci ngeen fekk sëriñ bi ma nga ca bu baax kon lépp luy jëmale réew mi ci kanam sëriñ ma nga ca loola ndax réew mi am réew ma ak njabootam fi nekk lépp luy jariñ réew mi moom moo ciy jiitu moo koy santaane moo ciy ñaan kon na ci seen xel dal bu baax